encore, plus encore, plus encore, plus encore, plus encore, Sonko waa ñëw na ñu ngi foori foo acteur am foori foo waaw damay wuy ma wuy ma am naa benn espace bu ma am fii à gauche damay damay naxante ngeen jox ma foofu ñëw la ñëw la. Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin So we out here today to remind all the world, the whole world, that Senegal is not in peace. Senegal does not have justice. Senegal does not have justice. Sénégal Sénégal doesn't have justice. Sénégal doesn't have democracy. So does not have justice. Sénégal does not have democracy. Sénégal doesn't have freedom. Journalists have been silenced. They cannot longer do their job. People have been in prison for no reason but their plea. 1,800 young in prison today. Maybe 10,000 the New York street today coming to the border because of Macky Sall and his government. So we are out tell you guys that they are good. They don't tell the truth. They kill us. They don't know. They use they thief. they entrust, they encourage, they violence, and they not good. We don't want them no more. We want them out of our country. We just want freedom. We don't That's want no more. No more abuse, no justice, No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. What do we want? What do we want? What do we want? What do you want? How we want it? How we want it?

Monica Sonko namm naa la Sonko Sonko Sonko namm naa la aye Sonko namm la Sonko namm naa la Sonko Sonko Sonko namm naa la about it when it's done. They never know about it. Inside, inside, guys. All in. But do willing to be. Definitely. Definitely. Definitely. Go, go, go. waaye waxal. jaay na ma jaay na ma suuf daal di si. ah. whenever you get the light. oh yaa ngi ci génn ñun de. Congratulations. Oh, oh, I'm the older son. I'm the older son. What ah a joga wa somb <coughs> li mu ñëwaat baati yaa ngi ñëw man moom sama bopp bi départ na bopp bi départ na baat bi départ na

How are you? Easily, I'm not. Martin Salah, assassin! bàyyil yoon bi daf ñuy indi problème. Allah ya Musa. All the country's phone is being uh, transferred in the, all over the world. People are dying. No hospitals, no schools. boo boo filmul dem leen ci biir balaa mu ñu. Macky Sall assassin.

non xam nga lu tax duñ leen faale bàyyi ko rek baat bi dem na baat bi dem na armée Sénégal bi doon leen ay góor doon leen ay góor yàpp leen seen ndey jël armée yi ngeen ñëpp ndey di Macky Sall mii jël leen armée yi ngeen ay góor waay doon ay góor def bi yëpp topp leen topp ay góor waay doon leen ay góor doon leen ay góor génne ay góor ngir yàlla sonn macha allah boo boo ñëwee rek yow slowal naa nga nanguwul mel ñu mën a gaar mais slowal down on the left side nga daw ndànk da ngeen di dawal ndànk si côté gauche parce que fii côté police yi nee na ñoo ko jël mënuñu ko bougé mais mu ne man ngeen taxaw tuuti soo ko départ taxaw tuuti ngeen wiiri départ ok ko nay maa ngi sa digg la ko nay maa ngi sa digg la ko nay maa ngi sa digg la ko nay maa ngi sa digg la ko nay maa ngi sa digg la ko nay Commissioner, commissioner, commissioner, commissioner. Commissioner, Commissioner. I wonder why this guy get a special privilege treatment. I wonder that. He's the mayor's best friend. Right, special privilege treatment. You're getting too far away from the pen. No, we're saying, we're saying dumb man. That's nice. You're supposed to be in the pen, but you're not. I'm not supposed to be in the pen. I'm not supposed to be in the pen. I've only agreed to be in the past. I'm not supposed to be in no past. I agree. I am being nice. And I agree to be in the past because of these wonderful people. But if I refuse, nothing gonna happen. Non, non, non, non, non.

should film it. Should film it. We who film You guys are pressed. Okay, you you're good. I need everybody else. Free some go. Free some go. Free some go. Free some go. Right now. Right now. No, you're all right. You're all right.